بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأمبوك دارا نيغي لين دي نوي نياب دي لين زيار دي لين نيانال يالا توفيق دي لين واخني تاي نيغي نياو تي سيمينير بيغا خامني موم لاني في دون واخني دي نانكوي ام تاي تي واركو تامبالي تاي كي نيجي تاخول موي شيخ الفا مو نيك سيمينير بو خامني دنجي ليرال القواعد الأربعة القواعد الأربعة إن شاء الله أيوة شيء ألفا بسم الله بسم الله قال المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين بسم الله قال المؤلف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مبوك القرآن والسنة مبوك جلتي كنا بسنت يا سبحانه وتعالى جلي تكو جنتي خير بدي محمد صلى الله عليه وسلم ñu dellu waat ci ñaareelu séminaire ci séminaire yi nga xam ne moom lañ fi amal ñu fas yéene jàngalante bi di alqawaidul arbaa alqawaidul arba ku ko bind moom mooy cheikh muhammad ibnu abdul wahab rahimahullah di téere yoo xam ne moom bu barkel la comme nu mu aado woon niñ ko tàmmee di gis eh, téere cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahab yàlla da cee def barke di ay téere yoo xamante ne dafa tasaaroo loolu ci àdduna bi mu barkeel bëri ay suroox bëri ay faram-fàcc yoo xamante ni def nañ ko ci téere yi lii di alqawaidul arba di téere bu am solo nga xamante ni cheikh bi da ci tënk ñeenti règle dinañ ànd ak yéen ci règle bu njëkk bi ak muqaddima bi yeneen mbokk yi incha allah ku nekk dina am ab règle boo jël jàngale ko traité ko qawaidul arba nag borom xam def nañ ci ay shuruux yu am solo bokk na ci charx yu ma ci gën a yëm mooy charx bi nga xam ne kii di cheikh ibnu Usaymin def na ko mu nekk lu gàtt ak al wazir Salih Ali Cheikh ak al cheikh Fawzan ak al cheikh Abdallah al Ghunayman كذلك tamit cheikh abdul aziz arrajixi ñi ñëpp charx nañ maanaam jël nañ qawaidul arba ñu daal di koy faram fàcc ñu daal di koy yaatal ni ko noonu ak cheikh abdurahman al barak am na yeneen yoo xamante ni tamit ci ay son la mu am solo lool lu ci mel ni charx bu cheikhuna saalih sindi def ak cheikhuna ibrahim ar-Ruhayli xafidahumullah comme dañuy gis ni cheikh bi rahimahullah ci ni mu tàmmee di def téere mu yëpp da koy tàmbalee bismillahi rahmaani rahim muy albasmala te loolu da ciy roy ñi nga xamante ni ñoom ñooy boroom xam-xam yu njëkk yi ku ci mel ni al imam malik euh, ku ci mel ni abdurazaq ci al musannaf ku ci mel ni al buxaari ci téere boobu di saxiix ñom ñep dañu ubbé sen téré yi lii nga xamanteni mom moy bismillahir rahmanir rahim motax al hafiz ibn hajar muné wa qad istaqarra amalu al aimma al musannifin ala iftitah kutubihim bil basmala muné borom xam-xam yi yi di bind téré dañu aada wo di ubbé sen téré yi li nga xamanteni mom moy bismillahir rahmanir rahim comme lolu aada borom xam-xam yi la sen téré yi yi ñuy bind dañ koy tàmbale bismillahi rahmaani rahim cheikh bi rahimahullah tàmbali ci njàngalem mu ne asalullah alkarim maa ngi ñaan yàlla allah alkarim bu tedd bi allah moy turu yàlla boo xam ni mbooleem turu dellu mooy turu yàlla yi ci moom la dellu comme ni ko al cheikh as-Sa'di waxee ci charxu asmaillahi alxusna tur boo tudd yaa ngi koy delloo tur yàlla boo tudd yaa delloo ci allah tur yàlla yi nga xam ni moom lañ xam mu ñëw ci alquran ak sunna di 99 ci gën a wër tur boo tudd yaa ngi koy delloo ci baat bii di allah dangay naan tur bii kat ci tur allah la bokk arrahman dangay naan ci tur allah la bokk arrahim nga ne ci tur allah la bokk mooy képp koo xamante moom moo yelloo jaamu te ñu bañ ko bokkaale ak dara mu ne maa ngi ñaan yàlla alkarim bu tedd bi karim mooy koo xam ni saa ko ñaanee mu joxe mooy koo xam ni saa ko ñaanee day joxe comme ni ko al cheikh as-Sa'di mu ne rabbal arshil azim borom arash bu màgg ba borom arash bu màgg ba arash dafa màgg moo gën a màgg ci lu yàlla sàkk ndax moom rek la yàlla tudd ne al azim mu indi ci alif laam al azim lu màgg ba mu idaafa ko comme arash lu bari ci borom xam ne nañ moo gën a màgg ci lu yàlla bind ñu daldi di tegtaloo ci aaya bi lii di arash nag buñ koy wax ci arab moom mooy chaise buur wala lalu buur waaye nag arasu borom bi ak arasu mbindeef du benn ndax borom bi lépp loo xam ne kumpa ci lim ñi ay mbir yoo xam ne da ko misaale lu jëm ci lamu yemoo ak la ca biir aljana dañuy jàpp ni turi dong ñoo bokk waaye melokaan ya bokkuñu comme arasu yàlla ak arasu masalan balqiis du benn du benn ndax arasu yàlla melokaan ba gisuñu ko waaye am na lenn lu ñuy nettali ne arsh noonu la mel dañ koy gëmee noonu waaye duñ ko duñ ko ta'wil wa an bokk na ci yooyu mooy borom bi subhaanahu wa euh, wax bu wax ni arsh lu màgg la ak tamit wax bu wax ni yonent wax mu wax ni arsh am na ay tànk xadis ñoo mu ne فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوام العرش إن صلى الله عليه وسلم بمو ديكي نينا ما جيس موسى متي بين تانك تي تانك عرشي كم دنيا قبنا عرش دفعم دفعم تانك دا حديث نيونة بنا موي عرش دينا ينغتو حديث نيونة لولو ينتب صلى الله عليه وسلم من اهتز اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من عرش ينغتونا تي ديو سعد بن معاذ kom loolu ngëneel bu rëy la bi nga xam ne ñëw na ci Saad ibnu Muaz yonent bi salaa sallam mu ne aras yëngatu na ci deewu Saad ibnu Muaz beneen bi mooy aras lu ñëw ci moom mooy dafa nekkoon ci kaw ndox comme xadis nu mu ñëwee balaa yàlla di sàkk asmaan ak suuf yonent bi salaa sallam mu ne kaana allahu walam yakun cheyun maahu wa arshuhu ala alma ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء mooy borom bi subhaanahu wa taala dafa nekkoon te dara nekkul woon ak moom topp ci arasham bi nekk ca kaw ndox mu topp sàkk asmaan ak suuf beneen mooy lii de arash tamit ne nañu moom mooy saqful janna moo féete kaw li nga xam ne moom mooy moom mooy aljanna mooy muur lii nga xamante ni moom mooy aljanna loolu xadis ñoo na ci yéen salaa sallam mu ne firdaws alal janna mu ne wa fawqahu arshu rahman ca kaw firdaws keroog àllaaxira arshu borom bi moom moo fa nekk waaye bu dee fii ci àdduna avant àllaaxira arshu borom bi mu nga nekk ca kaw asamaan loolu xadis yu bëri ñëw na ci di ko junju xadis zeynab bintu jahsh mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom da doon puukare woo ci biir soxna yonente yi ne zawaja kunna ahali kunna yéen seeni njaboot seeni wayjur ñu war a maye wa zawajani llah min fawqi sabi samawaat man nag yàlla moo ma maye mu bàyyee ko ca kaw juróom-ñaareelu asamaan comme loolu xadis bu leer na ni xadis bu leer la buy wane arash mu nga ca kaw asamaan te al awzaa yi dafa naql dëppoowu taabiu ni ak saxaaba yi ne arash mu nga ca kaw asamaanu juróom-ñaar te fala borom bi subhaanahu wa taala yemoo ca kawam beneen bi mooy Euh, arash maanaam dafa am poids borom subhana taala yonent salaa sal ci xadis ci ñaanam wa zinata arshik wa zinata arshik ma loolu day wane ni comme arash dafa am poids beneen mooy arash dañ koy yenu dañ koy yenu loolu aaya ñëw na ci wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin lii nga xam ne moom mooy sa arashu borom keroog juróom-ñetti malaaka ñoom ñoo koy yenu comme li mooy mbir yi nga xam ne sax na ñëw ci arash arash nag mooy lu yàlla njëkk a sàkk jumhurul ulama moom la ñu wax jumhurul ulama lu yàlla njëkk a sàkk moom mooy arash ci xadisu imran bin xuseyn ci riwaaya buxaari wax na mu ne kaana allahu walam yakun shay'un qablahu mu ne wa kaana arshuhu ala al ma summa xalaqa alsamawat wal yàlla borom bi nekkoon dara nekkul ak moom topp mu yem aracham nekk ca kaw ndox topp mu sàkk asamaan ak suuf comme loolu lu muy wane mooy yàlla balaa muy sàkk asamaan ak suuf arach la njëkk a sàkk ñeneen ci boroom xam-xam tamit ñu ne arach mooy lu gën ci lu yàlla sàkk lu gën ci yàlla sàkk te lu wax jooju wax ju wax ju dëgër la ndax moom la boroom subhanahu wa wax ni al azim comme mu ne rabbul arsh al azim boroom arash bu màgg ba ah, jahmiya yi ak mu'tazila layi ak achaira yi ñenn ci achaira yi naan arash kenn du ko firee chaise waaye dañ naan arash nguur la ñu ne arash nguur lañ koy fire donte maanaam boobu mën na am ci arab waaye di ko wax fii loolu njuumte la ndax arash bii borom bi di wax loolu ci arab chaise lay firi wala lalu buur mooy fi borom subhanahu wa taala yemoo ca kawam comme bu fekkente ni nee arash lu muy firi mooy nguur كم وحنا نعي برم سوان تعالى وحنا ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية كروك الله خير جرم نيت ملاك نيو ينو سا عرش برم كم نينا نيو لمي فري مو جرم نيت ملاك نيو ينو سا نغور برم نيو ينو سا نغور برم تلولو عرب بوسكو وخ كم لول دو وخ عرب دوكو وخ كم إمو تيمي موتا مو تونتو لين تلولو كم عرش فري ونغور ويا لمي فري مو مو يلان مو moom mooy arash bu ñu xam di chaise buur waaye chaise borom bi arashu borom bi ak arashu mbindeef du benn namu mel xamuñu ko borom bi subhanahu wa taala la moom moo ko xam bu dañ naan lii di arashu borom bi moom moom mooy juróom-ñeenteelu biddéew bu nekk ci kaw asamaan juróom-ñeenteelu biddéew bu mag ba loolu tamit ay wax la yoo xam ne amul benn preuve amul benn tegtal ay xalaatu doomu aadama rek yoo xam ne ñoom ñoo ko teg di ko wax rabbal arshil azim maa ngi ñaan yàlla borom arsh bu màgg ba an yatawallaaka fi dunia wal axira mu féeteeg yow ci àdduna ak al'axira kon loolu ñaan bu am solo la féeteeg yow ci àdduna ak comme gis nga borom xam-xam léeg-léeg dañuy ñaanal ña ñuy jàngal Cheikh Ibrahima Ruhayli mu ne ngir ñaar bu njëkk bi ki ngay ñaanal day tax dalay sopp te bu la soppee rek dalay lay déglu képp koy ñaanal mu xam da nga koy ñaan da lay sopp te bu la soppee da koy déglu mooy ñaareel bi mooy bëgg nga ci jamono bi nga xam ne fa lay taataanee xam-xam yàlla jegal ko ay bakkaaram nga xam ni day bees jublu ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla mooy sàkku xam-xam moo tax ñoom ñu faral di ñaanal nga ñuy jàngal mun an yatawallaaka fi dunya wal axira wa an yajalaka wa an yajalaka mimman ida utiya shakar mu def la ñoo xam mu def la mu boola la ci ñoo xamante ni buñ leen joxee dañuy sant wala in shakartum la azidannakum soo leen santee rek dinaa leen dolli moo tax mu ñaanal loolu mu boole ci ñoo xamante ni buñ leen joxee dañuy sant wa ida butuliya sobara ida butuliya sobar mu ne tamit buñ leen nattoo ñu muñ buñ leen nattoo ñu muñ loolu ay aay yu bari ñëw nañ di wax ci li nga xamante ni moom mooy muñ inna allaha maa sabirin wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul na nga muñ comme nu yonente yi jiitu woon ci ulul azmi muñee wa idha aznaba staghfar bu defee bàkkaar mu jéggalu yàlla bu defee jàk bàkkaar mu jéggalu yàlla moo tax yàlla borom subhanahu wa taala mu ngi tagg gaa yi sa suratu nisa yaakaar mu ne ñi nga xamante ni bu ñu defee bàkkaar wala ñu tooñ seen bopp dañuy tuub dañuy gaaw dellu ci yàlla borom bi subhanahu wa taala jéggalu yàlla yàlla jéggalu leen comme loolu lu am solo la moo tax borom bi wax ni euh, ba muy wax ni du mbugal yéefar yi te am na si ñoo xamante ni ci seen biir ñu ngi jéggalu yàlla gis nga moo tax yenn borom xam ne jéggalu ci bàkkaar day tax yàlla yéexee mbugalam istixfaar mu ne fa inna haulaay salaasa mu ne ñett yi ma lim nii mooy koo xam ne buñ ko joxee mu sant buñ ko nattoo mu muñ bu bàkkaaree jéggalu yàlla loolu mooy buntub texe texe mu ngi nekk ci ñett yi nii naam mu ne ilam arshadaka allahu li taatihi mu ñaanal yàlla mu ne ilam xamal yàlla la yàlla def nga jublu ci di ko topp mu ne anna alxanifiya millata ibrahim lii di xanifiya mooy jublu ci wéetal yàlla moytu bokkaale lool mooy xanifiya xanifiya mooy nga sax ci wéetal yàlla sori luy bokkaale loolu moo nekkoon diine maam ibrahim maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يعلم ان ابراهيم نيكول وون يهود نيكول وون نصران لا لا وون حنيف كو خم ني دا فا صح دا فد ويتال يالا مويتو بوكالي وما كان من المشركين بوكول وون سي بوكالي كاتي كوم كيب كو خم دا فا نيك سي حنيفيه سي دين سي لول نونو كوك منول نيك بوكالي كاتي ko xam day wetal yàlla buy ñaan ñaan yàlla buy wakkilu wakkilu ci yàlla buy waat ci yàlla buy wax bu soobee bu soobee yàlla lay wax du wax bu soobee diw du waat ci keneen ku dul yàlla du jébbalu ci keneen ku dul yàlla du wax ni diw mooy borom amal mu am yooyu ay xeetu bokkaale képp ku moytu loolu wéetal yàlla sax ci kooku mu ngi ci loolu moom mooy xanif kooku mu ngi ci li ñuy wax kooku mu ngi nekk ci li nga xam ne moom la suñu maam ibrahim yonente yàlla ibrahim nekkoon mu ne lan mooy xanifiya mu ne an taabud allaha waxdahu nga jaamu yàlla moom dong muxlisan lahu diin nga sellal ko lii nga xamante ni moom mooy jaamu gi wa bi dalika amara allahu jamia al muslimin wa xalaqahum laha mu ne lii di jaamu yàlla moom dong sellal ko diine ji mu ne loolu la yàlla digal mbooleemi jullit te looloo tax loolu la yàlla digal mbooleem nit ñi abrallahu jami an nas moom la yàlla digal mbooleem nit ñi wa xalaqahum laha te looloo tax mu sàkk leen kum wéetal yàlla moo tax yàlla sàkk nit ñi yàlla mu ne wa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamuma ma binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamuma comme yàlla waxna lam motax mu bindu ñu lu ñu jaamuma ñen ci taabion ni ku ci melni mujahid ak qatada ñu ne illa li yuwaxidun lu ñu wetal ma imam al bukhari buxaari sahih saxiix kitab al tafsir bo bi tafsir surat al zaariyaat mooy indi nako illa li yuwaxidun lu ñu wetal ma comme yàlla lutax mu bind nit ak jinn mo ñu wetal ko illa li yuwaxidun lu ñu wetal ko doon dañuy tuxal loolu ci ibnu abbas waaye tamit lu gën a wër mooy euh, saxul ci moom ci qataada la ak mujahid la gën a la gën a wër comme lu tax yàlla bind nit ak jinne yàlla wax na ko nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li doon bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma suufee yi dañ naan muhammad moo tax yàlla binduñu ñu ngi leen di laaj ñu indil ñu preuve ci alxuraan ak sunna comme yàlla wax na lan moo taxu mu doomu aadama nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun binduma nit ak jinne lu ñu jaamu comme loolu mooy lu sax loolu mooy li nga xam ne dalil ñëw na ci li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna فإذا عرفت أن الله خلق لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته soo xamee ne nag yow yàlla dalaa bind ngir nga jaamu ko ngir nga jaamu ko al ibaada lii di baatu ibaada buñ koy firi uh, cheikhul islam ci al ubudiya nee na ismun jaamiun li kulli ma yuxibuhu llah wa yardah min al al zahira wala min al afaali mu ne ibaada buñ ko waxee moom mooy tur la boo xam dafa ëmb lépp loo xamante ni borom subhaana da ko bëgg te gërëm ko ci ay wax aki jëf moo xam yu feeñ la wala yu nëbb loolu mooy jaam mooy lépp loo xamante ni borom subhaana da ko bëgg gërëm ko ci ay wax aki jëf yu feeñ wala yu nëbb noonu la ko cheikhul islam euh, définir ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, téeram boobu di al ubudiya ibnul qayim rahimahullah moom it ci nuuniya mu ne wa ibadatu rrahmani gaayatu xubbihi maa dulli aabidihi huma xubbaani mu ne lii nga xamante ne moom ibaada moom da koo tënk ci ñenn boroom xam-xam définition buñ ko jox mooy lan moom mooy attadallul lillah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi mahabatan wa taadima moom mooy toroxlul yàlla ci di def ay digleem di bàyyi ay tereem ànd bëgg bu mat sëkk ak màggal bu mat sëkk ak màggal bu mat sëkk loolu mooy li nga ne moom mooy ibaada mu ne al ibaada lii di jaamu laatu sama ibaadatan duñ ko tuddee jaamu yàlla illa ma at tawxid lu dafa ànd ak lii di jaamu yàlla kenn du ko tuddee jaamu yàlla lu dul dafa ànd ak nit ki bu doon julli di woor di joxe azaka di dem màkka te fekk saayu yu solo wala saayu duggee ci oto oto ba yëngu mu ngi woo keneen ku dul yàlla mu ngi woo sëriñ diw wala maam diw kooku jaamu yàllam boobu kenn du ko nangu ndax mu ngi bokkaale yàlla ndax wéetalul yàlla moo tax mu ne al ibada laa tusamma ibadatan illa ma at tawxid jaamu yàlla kenn du tuddee jaamu yàlla lu dafa ànd ak wéetal yàlla munoo di jaamu yàlla saa yoo waat yaa ngi waat ci keneen ku dul yàlla yaa ngi gëm ni am na keneen kuy taw ku dul yàlla gëm ni am na keneen kuy borom kun ku dul yàlla yaa ngi gëm ni am na keneen kuy dugalaate aljanna ku bokkut ak yàlla yaa ngi gëm ni àllaaxira am na keneen ku fay res ku fay dogal ku dul yàlla kooku sa jaamu yàlla kenn du ko nangu lu tax wala in ash la in ashrakta la yaxbatanna amaluk yàlla moo jàkkaarloog ku gën ci nit ñi muy muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko boo bokkaale woon dinaa màbb say jëf comme bokkaale day màbb jëf comme bokkaale ak jaamu yàlla mënut a ànd mënut a ànd booy jaamu yàlla di julli di woor di joxe asaka def lépp fekk yow yaa ngi bokkaale mooy mbir yi ma tudd yaa ngi koy def dem ci ay bàmmeel nit yi faatu di leen ñaan soo waree wax bu soobee yàlla nga taxaw nga naan bu soobee diw bàyyi yàlla gëm ni am na keneen kuy amal ku dul yàlla wala sax gëm ni am nag beneen yàlla moom loolu moom am na sax ñu àgg foofu sa jaamu yàlla bi kenn du ko nangu ndax lan sa jaamu yàlla bi àndu ak tawxiid àndut ak wéet yàlla wéetal yàlla mu ne kama anna solaa mu ne niki julli laa tusamma solatan kenn du ko tuddee ab julli illa ma a tahaara lu dul ni dafa ànd ak laab julli boo xam ne mu ne julli dafa jox exemple mu ne lu tax jaamu yàlla kenn du ko tuddee jaamu yàlla lu daa ànd ak yàlla mu dafa mel ni julli rek julli kenn du ko tuddee julli lu dafa ànd ak laab laab charte la ci julli boo laabul doo mën a julli ci koo xam ne amul ngant parce que laab moom imma ndox la soo amul ndox suuf comme kooku du am ngànt mu fa ida daxala shirk mu ne di bokkaale ida daxala bu duggee fil ibada ci ab jaamu yàlla fasadat da koy yàq wax naa ne léegi aaya bi la in ashrakta la yaxbatanna amaluk yow yonente bi yàlla nee yow muhammad yow mi gën ci nit ñi mu ne boo bokkaale ma màbb say jaamu yàlla waa ana keneen ana alpha ana njoxor ana ngañ bu dee yonente bi la yàlla wax ni soo bokkaalee ma mab say jëf ana keneen ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkaale bu duggee ci jaamu yàlla da koy yàq afsadaha mu ne fa shirk lii di bokkaale fa ida arafta boo xamee anna shirka ida xaalat al ibada afsadaha ginnaaw bi nga xamee ni nag lii di bokkaale bu duggee ci jaamu bi yàlla da koy yàq yàlla waxaat ci yonent ci yeneen yonente yi yàlla ginnaaw bu mu limee ay yonente yu bëri mbooleem yonente yu bëri lim bu takku nuux loot muusa isa ismail zakariya yahya ibrahim haarun idris ñu bëree bëri yusuf yunus yaqub ishaq yàlla mu ne walaw ashraku ñii ma nii bu ñu bokkaale woon la xabita anhum maa kaanu yaamaluun dinaa màbb seeni jëf dinaa màbb seeni jaamu yàlla yàlla yonente yi yonente nga xam ne moo gën kudul yonente yonente moo gën kudul yonente yàlla lim lim bu takku bii ci ay yonente yàlla mu ne bu ñu bokkaale woon ma ma yàq seeni jaamu yàlla waa ana benn alfa wala benn ñoxor buy toog fee naan sëñ bi mooy yàlla naan sëñ bi su ma dugalul aljanna bëgguma naan sëñ bi laa yaakaar aduna ak àllaaxira jébbalu sëñ bi jox ko boppam bàyyi yàlla ana kooku laa xawla wala quwwata illa billah yàlla ñu yàlla musal yàlla ñu yàlla musal mu ne ida xaalat al ibada afsada lii di bokkaale bu duggee ci jaamu yàlla da koy yàq wa axbatal amal day màbb jëf ji day màbb jaamu yàlla ji لا يحبطن عملك يا الله من يرنت بسو بكالون دمي ماب سي جف وصار صاحبه من الخالدين في النار لي دي بوكال نك نيت كي بوكو فاتو والي بامو ماب اي جفم دي يوبي بروم نك مو نيك كوي سخ بير سوار كو دي تي بوكال تي توبل دي تي بوكال تي توبل دي دم تي اي باميلو نيت يو فاتو مولين دي نيان gëm ni am keneen kuy borom kun ku dul yàlla jox ko yàlla ndax yàlla moo ne wa amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yàlla nee na ay mbiram su ko soobee danaan ko nekkal mu nekk loolu yàlla ko moom soo ko joxee keneen bokkaale nga yàlla boo waree wax bu soobee yàlla bàyyi yàlla ne bu soobee sëriñ diw nangam day am bokkaale nga yàlla yàlla mu ne ku faatu ci yii mu ne ku faatu ci yii nii ba dee ne day bokk ca ñuy sax biir sawara loolu aaya alquran la innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu nnaar wa ma lizalimina min ansar yàlla moo ne kii nga xam dafa bokkaale yàlla ba faatu ci bokkaale boobu yàlla araamal na ci moom aljanna fan la jëm yàlla mu ne sawara fu yàlla yàlla araamal na ci moom aljanna ku yàlla araamal ci aljanna foo jëm mu ne sawara fa sax mune bu fekke xam nga lolu arafta anna ahamma ma alek xam nga nak lu gëna am solo ci yow ma'rifatu zalik nga xam li di bokale nak ginaaw bokale nak bu duggé ci ab jëf da koy yàq te day jëmele day tax borom sax bir sawara mune nak ginaaw nak ba nga xamé lolu nak li li gëna li gëna am solo moy nga xam lan moy bokale bobu la allah amana yàlla an yakhlasaka mu muccal la min hadhihi shabaka ci piège bii di bokkaale waxee shirku billah ci piège boobu waxee shirku billah moom mooy lii nga xamante ni moom mooy bokkaale bi yàlla comme cheikh bi neelal nag comme que bokkaale day yàq jëf bu duggee si ab jëf day màbb sa mboolee mi jaamu yàlla comme nag bokkaale boobu war nga koo xam moo tax xuseyfa mu ne nit ñi dañ daan laaj yonente bi salaa sallam lu baax ma daan ko laaj safaanu mbaax ngir mën a moytu loolu safaanu mbaax mooy lu bon comme shirk lu bon la safaanu mbaax la comme nit ki su bëggee moytu shirk moytu bokkaale comme faa xam lii nga xamante ne moom mooy moom mooy bokkaale mu ne wa zalika ci lool nag bi maarifati faaw nga xam arbaa qawaida faaw nga xam na ñeenti règle yoo xam ni zakaraha allah yàlla tudd na ko fii kitaabihi ci téeram bii di alquran pour nga mun a moc mucc ci bokkaale xam luy bokkaale yàlla muccal la ci bokkaale faw nga xam ñeent règle yii nga xam ne moom lay waaj a tudd ñu ñëw ci règle bu njëkk bi cheikh bi rahimahullah mu ne alqaidatul ula règle bu njëkk ci règle yi cheikh bi nee na la boo bëggee xam bokkaale faaw nga xam ñetti règle léegi mu lay limal nag règle bu njëkk ci règle yi mu ne an taalama nga xam an alkuffar alladina qaatalahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muqiruuna an allaha huwa alxaaliqu alraziqu almuxyi almumiit almudabbir li jamii al umur walam yudxilhum dalika fi lislaam mu ne faaw nga xam yéefar yii nekkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam yéefar yi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa xeex ak ñoom muy ñoom abu jahl ñoom abu lahab ñoom umayya ñoom walid ibnul mughira mu ne muqirruun dañoo saxaloon anna allaha ni ki yàlla wal xaaliq mooy sàkk al raziq mooy wërsëgal almuxyi mooy kuy rey almumiit almuxyi mooy kuy dundal almumiit mooy kuy rey al mudabbir li jamiil umur mbir yëpp moo koy contrôler di ci tasarruf di contrôler mbir yëpp walam yudxilhum dalika fi l islaam waaye loolu dugalu leen ci islaam taxul ñu nekk ay jullit yéefar yi nga xam ne ñoo nekkoon ak yonent bi salaa sallam démb ba ko yàlla yónnee yéefar ya fekkoon makka ñoom gëmoon nañ ni yàlla mooy kuy sàkk mooy kuy wërsëgal mooy kuy rey mooy kuy eh, eh, dundal mooy kuy contrôler mbir yi waa ànd ak loolu nag loolu dugalu leen ci islaam taxul ñu nekk ay jullit naam lu tax mooy jëmmi indi benn tawxid lañu indi maanaam dañoo saxal yàlla ci ay jëfam dañoo saxal li nga xam ne moom mooy tawxidu rububiya mooy wéetal yàlla ci ay jëfam nga jëlee ci ni ñoom yéefaru démb yi ñoom maanaam accepté woo woon nañu jëfu yàlla mbir yii nii bu ñuy wax bu ñuy ijmaal dañ naan mbir yii ñoom daaw ñu ci bokkaale yàlla xamoon nañu yàlla moo koy def wala boog saxaloon nañ ko ñoom saxaloon nañu mbir yi lu ci gën a yéeme mbokk yi mooy ñoom abu jahl ñoom abu lahab ñoom umaya xamoon nañu yàlla mooy sàkk xamoon nañu yàlla mooy wërsëgal xamoon nañu yàlla mooy dundal waaye ay julliti tey dañuy bokkaale yàlla ci man dégg naa ku taxaw ne sëñ bi moo sakk loo xam ne abu jahli sañu koo wax abu lahab sañu koo wax yéefar yi mag yi yi nga xam ne jàpp nañ ñoo gën a bon ñooñu tey boo demee ñoom gëmu na yàlla mooy sàkk waaye jullitu tey gëm nañ ni sëñ bi day sàkk jullitu tey gëm nañ ni sëñ bi day rey di dekkil jullit tey gëm nañu seen bi mooy taw danga koy dégg sëñ bi moo naan tawal jullit tey gëm nañ ni am na keneen kuy contrôler am na keneen kuy nekkal ku bokkut ak yàlla loo xam ne Abu Jahl da koo moytu woon da koo sori woon kom nga jëlee ci lenn loo xam ne borom ñu ngi koy wax mooy jullit dañuy bokkaale yàlla ci ay jëfam di bokkaale ci ay jaamu yéefaaru démb yi ñoom dañ daan wéetal yàlla ci ay jëfam waaye dañ daan bokkaale ci ay jaamu waaye jullit tey ñaar yëpp la boole ñaar yëpp. bokkaale ci ay jëfu yàlla ak ci ay jaamu yàlla yàlla borom bi subhaanahu wa luy wone ni ñoom yéefaaru démb yi ñoom gëmuñu yàlla mooy sàkk mooy dekkil mooy wërsëgal waaye benn problème lañ amoon mooy nanguwuñu woon jaamu yàlla dong dañ daan jaamu yàlla di jaamu waale seeni xërëm loolu mbokk yi bi nga xam ne moom moo war a yor qaayida thaniya bi wala thaalisa bi xëy na dina ci ñëw waaw yàlla mu ne wala in sa'altahum boo leen laajoon man xalaqahum la yaqulunna allah yàlla mu ne boo leen laajoon ñoom abu jahl abu lahab walid ibnul mughira yéefar yi mag yi nekkoon màkk démb doon jaamu xërëm boo leen laajoon ku leen sàkk dañ naan yàlla am na ci ay jullit tey yu gëm ni sëñ bi mooy sàkk bu di ko manifester di ko wax xeeb nañ sëñ bi mooy sàkk de mais nee nañ sëñ bi mooy sàkk yàlla auzu billah yaa axi ab mbon fii la àgg amul lu gën nekk ab mbon lii te ña koy wax nag dama koy répété di ko waxaat ndax daf ma metti te war na metti bépp jullit ñi koy wax xam nañ fa ñu bokk xam nañ fa ñu dëkk ñu ngay taxawaalu di dem de gauche à droite bal ñu foofu sax mais ñu ngi menacé ñu naan yàlla nee na yonente bi nee na ban dëkk la ñu nekk ñun fan lañ jëm ñooñu kenn du leen kalaame ñooñu kenn du leen yuuxu ñooñu diingatuñu de ñooñu diingatuñ waaye ku jug naan yàlla nee na yonent bi nee na bàyyi leen bokkaale ñu ne yow da ngay diingat yow yaay intégriste bi yaay nangam ak nangam bi yàlla ñu yàlla jubal yàlla borom subhanahu wa taala wala cheikh bi indi benn aaya buy wane ni loolu luy wane ni ñoom yéefaru dem bi beneen exemple bi wane ni ñoom saxaloon nañ jëfu yàlla kenn ku ñu wax antar antar am na ñu ne da doon jaamu xërëm da bokkaale dafa jàkkaarloog benn waaye boo xam dafa seetlu ci moom ragal mu ne ko yaa ablu ayna min almaniyati mahrabu in kaana rabbi fi samaai qadaaha mu ne ko yoo ablu dafa mel da ngaa ragal waaye yow naka ngay def ba rëcc dee dee sama borom mi nekk kaw asamaan moom moo ko dogal nga entar moom mu ngi dund avant ñuy yónni yonente bi waaye xool ko rek moom saxal na jëfu yàlla nee na dee nee na ko lu tax nooy def ba rëcc dee da ngaa bëgg rëcc dee dee sama borom sama borom mi nekk kaw asamaan moom moo ko sàkk gis nga saxal nañ tamit yàlla mu ngi ci kaw asamaan wuuteeg ñii nga xam ne yàlla nekkul kaw asamaan yàlla mu ngi ci suuf mu ngi fépp loolu xëy na yeneen jotaay nañ ci ñëw buñ ko waree leeral keneen ku ñu wax Zuhair ibn Abi Salma moom it dafa dund jaahiliya te nee nañ jaam ko xërëm la woon waaye saxaloon jëfu yàlla nee na wala taktumanna allaha ma fi nufusikum li yaxfa wa mahma yuktami llahu yaalami mule ne bu leen jéem a nëbb li nga xam ne moo nekk seen seen biir xol yi mu yàlla loo ko nëbb nëbb xam yàlla xam de yàlla mënoo leen ko nëbb dara gis nga saxal na jëfu yàlla saxal na ni yàlla ak melokaanu yàlla yàlla xam na mbir yi nekk seen biir xol mu waxaat moom Zuhair ci ay waxam mu ne wama yasha irrahmaanu yaqin mu ne lii di rahmaan di borom bi lu ko neex lay fas lu ko neex lay def lay décider comme gis nga cheikh bi di indi tegtal buy wone ni ñoom yéefaru démb bi ñoom gëmoon nañu ay jëfu yàlla waaye nag loolu dugalu leen ci lislaam gëm ni yàlla mooy taw mooy dekkil mooy bind mooy wërsëgal kese fekk yaa ngi booy jaamu yàlla yaa ngi koy bokkal ak leneen yaa ngi sujjootal ay xërëm yaa ngi dem ci ay bàmmeelu nit yi faatu nga leen di ñaan boo duggee oto mu yëngu nga bàyyi fi yàlla woo keneen woo sëñ bi boo solo bàyyi fi yàlla woo sëñ bi sa portable bu daanoo wala nga yor kaas mu daanu nga bàyyi fi yàlla woo sëñ bi gis nga comme boo gëmee ni yàlla mooy sàkk mooy dëgg du jëriñ parce que yaa ngi bokkaal yàlla ci ay jaamu loolu moo dal yéefaru màkk dem bi ndax ñoom gëmoon nañu ay jëfu yàlla de waaye nag dañoo nanguwul jaamu yàlla dong ñu ne ajaala al aliha ilahan wahida muhammad daa bëgg a ñëw jël suñu téeméeri yàlla ak nangam nangam mu ñëw mu ne léegi nañ jaamu benn yàlla rek waaye loolu loolu duñ ko def waaye moo tax dugguñu ci lislaam cheikh bi indi aaya buy wane ni ñoom accepté woon dañ jëfu yàlla yàlla mu ne qul waxal yow muhammad man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard kan moo leen di wërsëgal mu bàyyeekoo ci asamaan ak tamit muy génn ci suuf si wërsëg bi nga xam ne mooy bàyyeekoo asamaan mooy ndox di génn ci suuf si mooy gàncax yi amma yamliku sama wal absaar seen dégg-dégg yi ak seen gis gi bët yi ngeen di xoolee di gis di ràññee ak seen nopp yi ngeen di dégg kan moo ko moom kan moo leen ko jox wa man yuxrijul xayya min al mayit kan mooy génnee lu dund ci li dee ci lu dee wa yuxrijul mayita min al xay kan mooy génnee lu dee ci lu dund borom xam ñu ne kuy génnee lu dund ci lu dee ñu ne suuf si dafa dee woon yàlla def ndox mi wàcc gàncax bi génn loolu mooy génnee lu dund ci lu dee gàncax yooyu la génnee ci suuf si dee soosu ñeneen ñu ne yuxrijul xayya min al mayit moom moo génnee euh, nit moom moo génnee li nga xam ne nit ci ndox mu dee maanaam ndox mi xam ne moom mooy génn ci doomu aadama ndox mu dee bu ndax ndox moom bu génnee yaram nit ki day mooy ndoxu sëy bu génnee si doomu aadama yaramam day dee mu génnee ci maanaam ndox mu ndox moom nga xam ne ndox mu dee la maanaam ndox moom dafa ci la nit soq soqe ko nit boobu di dund ñu ne loolu mooy génnee lu dund ci lu dee ñu ne ñu ne génnee lu dund ci lu dee moom mooy ku dee mooy ab yëfër maanaam misaal la yëfër mooy ku dee rek koo xam ne imaanam dafa dee mu génnee ci yëfër boobu ab jullit jullit boo xam ne imaanam day dund ñu ne loolu mooy génnee lu dund ci lu dee wa yuxrijul euh, mayyita min al xay maanaam mu génnee tamit xay wa yuxriju wa yuxrijul xaya al mayyit mu génnee tamit Euh, lu dee ci lu dund wa yuxrijul mayyita minal hayy mu génnee lu dee ci lu dund mooy koo xam ni ab jullit la imaanam day dund yàlla dogal nag mu génn ci moom ab doom boo xamante ni ab yéefar la imaanam dafa dee comme lu dal nuux nuux ab jullit la yàlla na too mu am doom boo xam ne gëmul yàlla ab yéefar la wa man yudabbirul amr yàlla mu ne anakan mooy contrôler situation yi yàlla mu ne ci jeexantal aaya bi fa sa na allah nañu wax yàlla mooy def loolu dañu wax ni mbir yii kat yàlla moo koy def ñoom yéefaru màkk yi dem boo leen ko laajoon kuy taw kan moom moom dégg-dégg ak gis-gis yi mooy ki nga xamante ne mooy génnee lu dund ci lu dee génnee lu dee ci lu dund yàlla mu ne boo laajoon ñoom abu jahl abu lahab umayya dañ naan ah loolu kat yàlla moo koy def yàlla mu ne ginnaaw bi ngeen xamee ni yàlla moo mooy def lii waaw jëf yi yàlla moo koy def afalaa tat afalaa tattaqoon ñu ne afalaa tattaqoon ñu ne afalaa tattaqoon mooy xanaa doo leen ragal yàlla kom ngeen jamu ko moom dong bañ koo bokkaale ginnaaw bi ngeen xamee ni yàlla mooy def lii mooy bind mooy sàkk mooy dekkil mooy wërsëgal waa kuy def lii kay moom dong moo yelloo jaamu ginnaaw moom dong moo ko mën a def amul keneen ku ko mën a def comme kooku lañu ñu war a jaamu nag kooku la ñu war a sujootal kooku dong la war a waat kooku dong la ñu war a woo bu ñu nekkee ci oto mu yëngu wala am lu wadd ci ñun kooku dong la ñu war a waatee ndax kooku mooy ki nga xamante ni mbir yii moom dong ko mën a def keneen mënu ko yàlla mu ne ginnaaw bi ngeen xamee li kay afala tattaqoon xanaa doo ragal yàlla ngeen jaamu ko moom dong te ngeen bàyyi leneen ngeen leneen te ngeen bàyyi leneen li ngeen di jaamu lu bokkut ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala comme fii la dars bi yam xam naa gudd na nag ñu ngi ciy jégalu parce que euh, dañ cee boole muqaddima bi muy euh, introduction bi mu xawoo a bëri lool di yàlla borom bi subhaanahu wa mu mee ñu dégg ak topp lépp luñ fi wax mu jub nañu xam ne ci yàlla la lu ci dëng ñu xam ne ci borom bi la hada wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain audio boo xam ne maa ngi ko doon euh, déglu léegi maa ngi naan la àlallaaha yaxlasaka loolu sabqu lisaan la an yu xal la àlallaaha an yu xallisaka an yu xallisaka loolu mooy lu gën a lu gën a jub